di rafetlu xalaat yeeg lii nga xam ne mooy li leen tax a jukk mooy xayma dëkk bi ak réew mi ngir mën na xam fu ne lam yellool loolu nag nii ngeen def ñu ngi koy rafetlu ndax ci yi weesu jàmbat nañ ba tàyyi ngir wax dëkk bi nii li toll mu mel ne ñii dañuy wax lene loolu nag jàpp naa ne ñëpp ci am responsabilité yéen ñi nga xam ne yéen a jug ko def am ngeen ci responsabilité ndax nit boo koy defal dara war naa xam li mu doon ñu ñu koy defal it am nañ ci responsabilité ndax bu fekkente ne dañ laa laaj sa kër ñaata nit na mentalité nit ñi moo toll foofu ba fi ne damay wax ne nit ñi dañoo ragal recensement ndax xamuñ ko moo tax waaye itam bu fekkente ne yaa wàññi xayma sa la mu doon buñ la nattalee ne nii nga toll te loolu day aju ci lépp boobaa waroo ko jàmbat. kon ñëpp ci am responsabilité kon nag ni ngeen ko tàmbalee euh, xalaat bu rafet la ndax boo seet bu jëkkoon da dégg ñee Touba neuf cent mille la ñi nga dégg ba léegi ñu wax ne un million deux cent waaye li gën a wóor nga xam ne ci ñi fi dëkk rawat na ñi yëngu ci wàllu santé di jokkoo population bi yëpp xam nañ ne un million neuf cent ba deux mille ba deux millions du ko sore kon nag loolu ki ne ci dëkk bi ñu xayma ko ne sa dëkk fii la toll te li war nguur gi nii la war a demee te fekk moom moo joxetoon xaymaam koy da ci am responsabilité kon loolu ñu ngi rafetlu lii nga xam ne def ngeen ko di ñaan itam yàlla suñ borom ci barke sëriñ bi suñ borom defal leen ci ndimbal defal leen ci feex ndax am na kilifa gu daa wax ne ku xamul ne ndab yi toll doo mën a séddale kon ku xamul nu dëkk yi toll ak nit ñi boo boo séddalee it faaw nga juum ci ni ngay séddalee boobaa euh, kenn ku ci njuumte da koy këpp sa morom loolu la ko jàpp naa nii ngeen ko tàmbalee incha allah mooy itam danaa leen boole ñi nga xam ne ñoo nekk ci loolu te ka ci jiitu di maire Abdou Lahad Ka moom mi nga xam ne moo nekk ci kaw chef du village yi bu ko àndee ak sous-préfet fexe ba fi ngeen di jëm fépp ñu xam ko xam li leen tax a jóg xam barab yi ngeen war a dem yaakaar naa dañ leen dimbale ci li nga xam mooy li ngeen war def li seen kanam li ngeen di waxee dégg nañ ko loolu itam daañu leen boole moom lu mu ci mën a def mu def ko lu mu ci mën a def it ñu seet nuñ leen ci jàppale ba liggéey bi lépp yemb sant ba ngeen am ci dem. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.